واجبا دايلا ويا ما خسر الانس والجنين رسول الله اليكم واجبا دايلا ويا ما mbokk yi dañuy wéyale ITV bi rek ki ñu jox kàddu gi nag muy Aboubacry Samb mu Seydina Mouhamad rasulullah sallallahu mu ñëw wuy appel Seydina Limamou ñu fekk la fi ci sa bésu wëllëre Chérif Abdoulaye Thiaw bu Serigne Mor Laye radiyallahu anhu alors sa teewaay ci bis bi Aboubacry Samb. waaw kay jërëjëf ñu ngi am mbégte di am kontantement bu baax a baax comme ni nga ko waxee tey euh, suñu wëllëre moo ayee suñu xarit waaye itam suñu kilifa ndax euh, du nit ku ndaw euh, ku ku ko xam-xam wëllëre wëllëre gi mu doon ak maam Abdou si bu Ndiol Fouta donc nag tey ñu ñëw wéttali si ko gunge ko ci bësam bi nga xamante ne bëgguñu benn yoon mu wéet ndax bu yàggul dara la way juram génn àdduna donc ñun ay xaritam ñun ay frère am war nañoo mën a ñëw tey euh, gunge ko ci bësam bi nga xamante ne bokk na ci appel bi nga xamante ne tey euh, fekk fi way juram donc nag yoon la euh, lu ñu jàppoon ñu bàyyi ko ngir ñëw wéttali si ko tey Bakary Samb danoo génn ci Kazu Rajab nga def ci partition gu am solo tàgg Serigne Fallou nu ñëw dugg ci appel bi muy kër Seydina Limaamu mu mel ni yéen tey da ngeen na taxawee taxawaay ambassadeur ngir wane ni kër diina yi benn la loo ñu ci mën a wax. ak fi réew mi tollu ci ñàkk comprendre nante xëy na ku ne di xëcc ci sa bor te war nañ mën a doon benn te du te du tee ku ne gëm la nga gëm. waa jërëjëf jërëjëf ci euh, question bi xam nga àdduna yàggul te Aboubacry ku ko xam-xam ko ci fédéré Aboubacry benn waxam la am mooy Aboubacry dafa universel. wax nga ko way naa Serigne Fallou Mbacké ndax yàlla dénk nañu soppe bu ne yaa ngi gis fan yi diggante islamo chrétien yi ci am ba tax na bokk naa ci ñiy wax ne dinaa def ak ñoom ay son donc daal euh, nañu delloo siwaat xel yi te xam ne ñun ñëpp benn lañu tey bu Tiwaawan ayee Abdoulaye Thiaw day ñëw bu Touba ayee day ñëw bu Ñaseen yi ayee mu ñëw donc nag lii mooy àdduna lii mooy àdduna ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay ñu ngi ñaan daal yàlla na yàlla yokk jàmm ci réew mi ci barke yonent bi ñu ngi lay jaajëfal Aboubacry maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax jaajëf jaajëf mon frère jaajëf jaajëbo dayala oyo yama faral insi wal yinini rasulullah ilaykum jaajëbo